waaw ah, salaamaaleykum mbokk yi nga xam te ni yéen a ñuy déglu ak dañu topp ci rawatina émission boobu ñu tuddee sunu yaakaar seen mbokk Ibrahima Diop dellu ngir waxtaan ak yéen ci li nga xam ni mooy injil di xibaar bu baax bi nga xamante ni moom la yàlla may yenn ci ay nit wala ci taalibe yi nga xam ñoo doon ànd ak yéesu ñu bind ko ci kàttanu xel mu sell bi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëmaat di ñaan ñi nga xamante ni dañoo tawat yàlla fëgg seen bopp ba nu mën a jóg ñi nga xam ne dañoo nekk ci ay jafe-jafe it yàlla génn leen si ah ñëpp ñi nga xamante ni tamit dañoo ñàkk jàmm yàlla jàmmal leen waaw ah, ñi ngi ñaanal ñëpp di ñaan jàmm ci réew bi tamit am mbégte teewaat fii fas yéene wéy suñu jukki boobu nga xam ne tàmbale woon nañ ko ci téere màcc comme ni ma ko waxee màcc bokkoon kenn ci fukki ndaw yi ak ñaar yi àndoon ak yeesu jamono ji mu nekk ci kaw suuf màcc ab juuti la woon tamit da daan dem ci béréb liggéeykaay ca marché ya daan fayeku juuti moom moom moo bind jaare ko ci kàttanu xel mu sell bi ci dund bi yéesu saar ñeent bi lii la wax ñu ne gannaaw bi nga xam te ne yeesu sóob nañ ko ci ndox war na waajal tàmbale liggéey bi nga xam ne moo ko fi indi ñu ne yéesu dékku na ay nattu ci pexeb seytaane seytaane nag képp koo xam ne liggéeyal yàlla moo la tax a jóg képp koo xam ne def coobar yàlla moom moo la yitteel seytaane noo def mu jëm am lu ci dugal ngir jëm la cee fàbbi wala ngir jëm la ci indil ay sikk-sikk ñu ne kon bi loolu amee xelum yàlla yóbbu yéesu ca màndik ma ngir mu jànkonte ak fiir seytaane fiir nag ñëpp gis nañ ni yaakaar nit ñi doon yaakaar ne fiir yàlla du fiiraate seytaane mooy fiir mooy nattu yéesu nag nekk fa te lekkul ñeen lekkul ñeen fukki bëccëg ak ñeen fukki guddi door a xiif mu nekk ca Manding ba ginnaaw bi ñu ko soobee nag dem na ca Manding ba Manding ba mooy désert pour ñi nga xamante ni euh, xamuñu lan la baatu mànding di tekk mooy désert donc ñu ne fa la Yeesu dem def fa ñeent fukki fan ak ñeent fukki gii di quarante jours yoo xam ne lekkul naanul ngir jànkonte fa ak fiiri seytaane noonu fiirkat bi ñëw ci moom ne ko boo dee doomu yàlla santal doj wi doj yi ñu nekk mburu gis nga fi mu ko jaar mu ne bu fekkee ni doomu yàlla nga ndaxte fàttaliku leen keroog bi ñu ko soobee ndox baat jibee na asamaan ni kii mooy sama doom di ma bëgg ci moom laa amee bànneex seytaane dellu si ni ko bu fekkee ni doomu yàlla nga santal doj yii nekk doj parce que boobu xam na ni yéesu xiif na ñeent fukki fan ñeent fukki guddi ku ko def ci béréb lekkoo naanoo di nga xiif mu jaare foofu waaye déglu leen di ko yeesu tontu waaye yéesu ne ko mbind mi nee na nit du dundee mburu rekk waaye itam gépp kàddu gu génne ci gémmiñu yàlla nit du dundee mburu rekk waaye bépp kàddu boo xam ni moo génnee ci ci gémmiñu yàlla nit mën na ko dunde ndaxte yaram bu ñu fàtte ni am na suux am na xel am na ru ruu bi moom moo jóge ci yàlla ruu bi li koy dundal mooy liy jóge ci yàlla muy lëkkaloo ak yàlla muy jéggi li nga xam te moo jóge ci yàlla loolu muy dundal ruu moo tax yéesu ni ko fii nit du dundee mburu rek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 donc ginnaaw bi mu paree ak moom ci mbirum doj yi yóbbu na ko ca kaw ca kër yàlla ga ca njoboxtal la ca kaw won ko suuf nag ni ko bu mën ngaa cëppeelu yàlla dina yoon ay malaaka ñu leew la ngir nga bañ a dóor sa tànk ci doj bala ngir nga bañ a damm déglu leen tamit tontu bi yéesu yéesu ne ko bind nañu it ne bul dingat yàlla sa moroom yàlla sa boroom bul dingat bul nattu yàlla nga xam ni diw fii nga féete si moom diw lii la ci yow waaye nga koy jéem a waaye loolu la ko yeesam bul dingat yàlla sa boroom gannaaw loolu seytaane yóbbu ko ci kaw tund wu kawe lool won ko réewu àddina yépp ak seeni ndam mu ne ko lii lépp dinaa la ko may boo sukkee màggal ma seytaane wax loolu yéesu yóbbu na ko si tund wu sore sore won ko réewu àddina sépp ak li ci biiram ni que lii lépp maa ko moom soo ma sukkalee sujjootal ma dinaa la ko dinaa la ko jébbal waaye yeesu ne ko sore ma seytaane ndaxte mbind mi nee na nanga màggal yàlla sa boroom te jaamu ko moom rekk na màggal yàlla sa boroom te jaamu ko moom rek noonu seytaane bàyyi ko te ay malaaka daal di ñëw fii yéesu di ko toppatoon yeesu def na ñeen fukki fan ak ñeen fukki guddi ci mànding ba jànkonte fa ak fiiru seytaane bu njëkk bi seytaane nag bu dee yàlla doomu yàlla soppi doj yi ñu nekk mburu ndaxte boobu xamoon na ni yéesu xiifoon xam naa ne bu doon suñu mbokk njaayee ni moom def nañ ko bu yàgg ñoom waaye te tontu ko ne nit du dundee mburu rek waaye bépp kàddu boo xamante ni dafa génn ci gémminu yàlla seytaane bàyyi ko jël ko foofu yóbbu ko ca njoboxtalu kër yàlla ga ca kaw kaw kaw ni ko tëbal ci suuf yàlla dina yónni ay malaaka ñu leewu la ngir nga bañ a sa tànk bañ a damm wala nga bañ a dóor sa tànk ci doj yéesu nika bul dinat yàlla sa boroom bul dinat bul nattu yàlla sa boroom mu bàyyi foofu mu yóbbu ko ci tund bu kawe kawe won ko àddina si ak nguur nguur sépp yi ci àddina seytaane ni ko nguur àddinaa ngi nii ak li ci biir lépp maa ko moom lenn rek laa lay ñaan nga sujjootal ma ma may la ko yeesu ni ko jaamu na nga màggal yàlla sa boroom te jaamu ko moom rek waruñoo jaamu keneen waruñoo màggal keneen ku dul yàlla waruñoo sujjootal keneen ku dul yàlla yàlla moom rek lañu war a màggal moom lañu war a sujjootal loolu la tontu tontu seytaane am bés yeesu dégg na dégg na jàpp nañu yaxya mu jóg nag jëm galile gannaaw gi mu toxoo dëkku nasaret dem dëkk kapernawum bi féeteeg dex ga ci diwaanu sabilon ak neftali noonu am lañu waxoon jaarle ko ci yonent yàlla Esayi bi mu naan yow réewum Sabilon ak réewum Neftali di yoonu géej gannaaw dexu Yordaan yow Galil réewum ñu dul yawut xeet wa nekkoon ci lëndëm gis na leer gu mag ña dëkkoon ca réew ma ma dee tiim leer fenkal na leen booba Yeesu tàmbal di waare naan tuub leen seeni bàkkaar ndaxte nguuru yàlla aja kawe gi jege si na fàttiku leen baat ñu ko njëkkee woon dégg ci yonentu yàlla yaxya bi mu naan tuub leen seeni bàkkaar ndaxte nguur yàlla aja kawe ji jege na yéesu dafa ñëw rekk wéy ci loolu moom it yokk ci wàññiw si yëgleeg nguur gu yàlla woo nit ñu tuub seeni bàkkaar moom moo ko moo ko indi woon ci ay yi si topp dañoo gis ni yéesu tànn na ay taalibe te ci kenn ci taalibe yi kii màcce si la bokkoon gannaaw loolu yeesu doon dox ca tefesu dexu galile mu gis fa ñaar ñuy bokk ndey ak baay muy Simon mi ñuy wax Pierre ak André fekk ñuy sànni seen caax ca dex ga ndax ay nappkat lañu woon yéesu ne leen ñëw leen topp ci man ma def leen nappkat nit ca saasa ñu daldi bàyyi seeni mbaal topp ci moom yéesu woon juutikat ab juuti mu doon taalibeem fii tamit gis nañu yéesu woon ay nappkat ñi leen ñëw leen topp ci man def leen ay nappkat nit maanaam nappkat nit mooy nit ñoo xam ni dañuy dem di woo nit ñi di gàggan ci nit ñi di leen indi ci yoonu yàlla noonu lañ loolu lañ loolu tuddee nappkat nit donc kii di simon pierre ak andré di ay di rakam ay nappkat lañu woon yeesu ne leen nañu bàyyi napp gi ñëw mu door def leen ay nappkat nit kon gis nañu ci taalibe yi amoon na juuti amoon na ay nappkat ca saasa ñu wax loolu ñu ne ca ñu daal di bàyyi gaal ga ak seen bàyyi topp ci moom ba loolu amee yeesu doon wër Galile gépp di jàngale ci seeni jàngu tey yëgle xibaaru jàmm bi ci nguuru yàlla muy faj jàngoro yépp ak wéradi yépp ca nit ña donc yéesu mi ngi doon waare kàddu yàlla gi mi ngi doon woo nit ñi ñu tuub seeni bàkkaar mi ngi doon woo nit ñi di leen delloo si yàlla waaye mu nga doon it di faj ak di wéral jarag yi ñi feebar ñi làgg ñi gumba mu ngi leen doon wéral ndaxte bu ñu fàttaliku ni ci yàlla la jóge malaaka bi newoon na Yuusufa doom bi mariama ëmb ci kàttanu xel mu selim la ko bën la ko la ko ëmbee yàlla it ginnaaw bi nga xam ni sóob nañ ko ci ndox ba pare seedeel na ko indi na firnde ni kii mooy sama doom ci ma bëgg dinañ ñëwaat xëy na ci baatu doom jooj ci suñu yeneen gëstu waaye doom tekkiwul rek ni góor ak jigéen dañoo sëy ngir doom judd fa ci jamono yooyu buñ ne doom dañu naan ci diw la jógee ci diw la bawoo donc bu nee yéesu doomu yàlla yéesu dafa jóge asamaan ci asamaan la bawoo jikko asamaan la yor jikko asamaan la jikkowoo loolu la ñuy wax foofu donc yeesu kon yamul woon rek ci di waaw indi nañu si ci yoonu yàlla di leen tuubloo seeni bàkkaar waaye doo leen doon tamit di wéral di faj seeni jàngoro di leen dëfal loolu la loolu la kàddu gi loolu la kàddu yàlla gi wax kon gis nañu ni noonu la noonu la doon demee ñi ko doon ñi ko doon indil ñi wopp ñëpp ñu sonn ndax ay jàngoro ak ay métit yu bare ñu rab jàpp ñi say ak ñi làgg mu faj leen noonu mbooloo mu bare topp ci moom jóge ci wàll galile ak diwaanu bi ñuy wax fukki dëkk yi ci dëkk yerusalem ak ci diwaanu yude ba ci ginnaaw dex yordaan kon sunu sunu jukki tey fii lañ ko yemale ci euh, ni nga xamante ni noonu lañu gisee ñëw yaxya mi doon soob nit ñi ci ndox di leen tublo seeni bàkkaar ak di leen wax naan nañu waajal yoonu borom bi ndaxte nguuru yàlla jaga si nañu gis nañu ni yeesu ñëwee ñu soob ko ci ndox mu dem ci manding ba seytaane nattu ko fa mu jóge foofu tàmbale liggéeyam tàmbale di tànn ay taalibe gis nañ tamit ginnaaw tamit kaddu yàlla gi mu doon wasaare di woon nit ci ñu tuub seeni bàkkaar di leen delloo si yàlla ma nga doon tamit faj ay jarak ñi feebar mi ngi leen doon wéral ñi ñi ñi làgg mi ngi leen doon doxloo ñi gumb mi ngi leen doon gisloo ndaxte kattan nga mu yoroon ci yàlla la jóge ci xel mu sell bi la jóge woon foofu la boo woon kon ñi leen gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla borom jàmm jàmmal leen ñu feebar yàlla faj leen wéral leen bu ngeen amee ay laaj mën ngeen bind numéro yi nga xam ne moom ngeen di gis noonu ñu bind ko mun ngeen ci wootee mun ngeen am na whatsapp mën ngeen bind tamit ci suufu njàng yi tamit ñu mën a waxtaan ak yéen tamit ci seen ay laaj jërë ngeen jëf na leen yàlla barkeel ñu ngi leen di jox dox daje beneen yoon ci yeneen jukki tamit jërë ngeen jëf jërëjëf yéen ñi nga xamante ni yéen ak ñi doon topp si suñu page youtube di leen wax ni jërë ngeen jëf si li ngeen di wéy di ñu topp di seetaan vidéo yi te di leen ñaan ngeen mën ngeen ko partage ak seen ay xarit mën ngeen si waxtaan te itamit su ngeen si amee ay laaj mën ngeen ko mën ngeen ñu ko laaj mën ngeen aimé waaye itamit mën ngeen abonné wu itamit si page bi bu ko defee di ngeen mën di gis vidéo yu bees yëpp yi ñuy dugal si jàngaleb yonent yàlla insa jërë ngeen jëf na leen yàlla barkeel